mbokk ak xarit yu ñuy ci igfm point sn lëkkaloo ak youtube slash tfm dal leen jàmm ci xibaar bi leen jëleelu fi nga xam moo Pikine fii nag boor Icotaf ci wàllu législative 2017 mbër bi nga xam moo di Boy Niang te ñëpp ràññee ci li nga xam moo di arène bi moo cëppeelu ci langue politique bi di jàppale waa Bennoo Bokk Yaakaar mu nekkoon xew-xew boo xam ne El Hadj Mansour Mbaye woon na ko mu nekk ay kàddu yoo xam ni nag Boy Niang yëkkati nañ ko ñu bàyyi leen ngeen daal di déglu ma am na ceeb waa cité bi def ko mooy maanaam dañuy delloo njukkal dañuy delloo njukkal ceeb bu baax parce que ceeb suñu grand la comme gars yi ñu fii léegi maanaam waxuma ne sa kàpp la ñu jàpp boo ñaari suñu yaay yi suñu papa yi ak képp koo xamante ni ceeb diggante na ak yow rek mi ngi lay jàppale xewul benn soxla ku ci am soxla mu taxaw si. su ma supporter yi boo ñëwee mbooloo ko ñëw ñoom ñu ñëw dafa jaar parce que bu amee combat bii ñuy demee stade ñoom yow yaa koy jënd ñoom kaar yi ñuy demee yow yaa koy jënd yow yaa jënd billet yi yow yaa jënd billet yi yow yaa jënd kaar yi yow yaa jënd ko di ko dem wala yi ngeen ñu ko demee stade yow ci yow ñoo ko jënd waaw donc de donc da nga koy Parfois, il y a un gros partenaire. ba léegi ñu nag fu mu nekk léegi ñu nag mu ngi toll di waxtaan ak ñoom ak ministère Thiès naan la waa Jalla yow yow baax na soo baaxee sama xale la moo tax su ko defee ñu wàcc dafa jaarul parce que loolu bëri nañ ay taxawul mais loolu dafa am ci kontaan ba damaa ñëw sama ay papa toog sama ay kilifa yaa ngi dégg sama papa jëloon fi kàddu léegi xam nga dama koy dégg. waaw Thiès ba mu ñëwee ba léegi ba mu ñëwee léegi dafa maa ñëw dama booy naa kontaan naa ma ne ko non yow ñun ñoo war a kontaan ma ne ko ñun ñoo war a kontaan parce que yow lu la defal rek genre fay bor la mënuñu sax fay bor bi mais ñun dañuy am ay situation am suñuy combat parfois ñu jox ñu avance xaalis bi jeex tàkk ñu ñëw fëgg na la bi métti na dañoo dugg ci àll bi nga yëkkati oto yëkkati xaalis dama mën am préparé waaye léegi comme su ma deful lii la laa def nag donc loo ma seen di ko defal yeneen mbër yi dañuy jël avance xam nga ne avance mbër bu mu méttee xaalis bi day jeex tàkk day ñëw foog dafa mën a exemple jeexal nañu wala ñoo dugg gàmb wala ñoo dugg génn feneen ak feneen mu jël oxom jox bu ko defee yëngu xaalis booy jox te dafa préparé sa combat mais kooku bu dee taxaw bu amee dugub boo taxawul nan ngay def yaa ngi dégg moo tax ma moo tax ma woo sama boy waa café waaw moo tax moo tax ma woo sama boy ñi nga xam ne ñoom laay àndal ñu waa café yi chaque jour fu may toog loolu la am na lu solo waaw nit fu mu yegg nag nit moo ko fa yóbbu waaw kon su ma yóbbu ma yóbbu ma ñëw fii waxtaan ñu gaf bee yaa ngi ñëw bu am solo ñu fat man su ma am solo ñoom ñëpp ñu jóg ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay boo déggee ñu mën a def ñoom ñooy àndee moo tax ma woo leen na leen damaa gis ne nag sama mamaa yi ñu ngi jàppale ceeb mais yéen gisuma ne ngeen jàppale ceeb man ne loolu xamu lan la ñoom mënuñu wax dara man ne leen damaa bëgg ngeen jàppale ceeb parce que ku mu jàppale ñu doyati ñu jàppale sa yaay wala sa papa waaw kon loolu mooy jàppale suñu gannaaw la man damay bëre ci laamu yéen bi ñu ñëpp dañoo jug topp ci ñu jàppale ko loolu mooy yoon waaw moo tax du ñu wax lu bëri daal dañ lay xam ne dañ lay wóor la ñaanal suñu borom defal la yaa ngi dégg ñun ñëpp ñëpp daanu ñuy wax rek ñëpp daanu ñu xam ne Macky Sall ndax yow yaa ngi dégg yow suñu jànkar gannaaw la ñëpp dañuy wooteel Macky ngir yow te man Macky sama papa daa wax léegi bu solo sama papa daa wax léegi bu am solo yaa ngi dégg président ñun ñëpp dañ koy jàppale ñun parce que dafa ñëw samp loo xamante ni ñu dañ ko doon rafet suñu yi ba ñuy bëri amuñu ko woon mu ñëw ne arène nationale gars yi ñoo tijjeen coono pare mu ne fii la amay defee waxuma la sax yeneen mbër yi dañ ko war a voté mais plus particulièrement ñun ñu dëkk Pikine ndax arène bi Pikine la ko indi moo tax ñu war ko jàppale moo tax ñun ñëpp dañ koy jàppale loolu moom jarul ngeen di tiit sax loolu jarul ñu ñu nekk fii kon ñi bëgg Ama ñi bëgg Eumeu wala ñi bëgg beneen mbër dañuy waneel Macky loolu jarul wax sax loolu moom soo Pape Mansour Mbaye encore maa ngi lay mention spéciale maa ngi lay gërëm bu baax a baax